yëpp conseil municipal bi ñoo ànd pour ñëw indi participation ville de Dakar ci événement bu rëy bii lii ñu am nag Dakar moo ko am ku am lu mel nii war nga def lu rëy rëy rëy rëy dañu ñëwoon rek doon barkeelu si indiwaale suñu contribution moom laa bëgg woon léegi jëwriñ bi fi nekk comme que mbakki wu nekk fi ñu jéem a dem kër xalif bi ziar ko bu mu nee nekk su suñu mënee dellu si waat itam ñu dellu si ndax nag ñun ñoo yore gan yi. ci xayma indi nañ 5 tonnes ceeb indi nañ 30 euh, bidons d'huile indi nañ une tonne soble indi nañ 10 000 litres ndox 10 000 bouteilles d'eau ah te 10 000 bouteilles yooyu bu bës baa am na yeneen 20 000 yoo xam ne daayira ville de dakaar bi moo koy distribuer indi nañ itam enveloppe bi. lii ñu am tey euh, Serigne Touba moo ñu ko defal passage bi mu jaar Dakar. motax yalla suñu récompensé la plus grande mosquée de l'Afrique de l'Ouest li fierté la tous les Dakarois fi Serigne Touba mo ñu indil fi la ñuy les Topoto, daf ko lo xamné endroit bo xamné du mel nenn ci Dakar ndax liñ fi daf amul lenn lu Dakar kon ñun bi ñu ñu ñun ñëpp wër ñu ñëwoon vraiment doon ñëw siyaare si visiter tuuti mosquée bi joxe suñ contribution ziar sëriñ bi yàlla nañ yeggaleeg jàmm may oo nag dakaar waa yëpp da ngeen am ay gan na ngeen génn ngeen ganale nit ñi ngeen dugal leen ci yéen ngeen génn ci biti ndax ku am gan da koy teral te ci addina bi yëpp la ñuy jógee bu leen fàtte ne c'est la plus grande mosquée de l'Afrique de l'Ouest kon waa Dakar am ngeen gan nañ teral suñuy gan teral xalif bi gis ngeen démb ni ñu recevoir xalif bi noonu la ñu war a continuer nag ba ba inauguration mosquée bi nañu góorgóorlu ñun ñëpp continuer ci set bi gis ngeen avenue bi ni mu setee lii xam nga ne mosquée bi rek moo ñu may bii chance yàlla na law ci biir dakaar yëpp ba nga xam ne foo tourné ci dakaar dana fekk jumaa ji Masaalikul naan moo leen wàllu ñoom yeneen quartier Dakar yi